aousubillahi min seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim bakki baram tuwa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci tur suñ kilifa gi ñu àndal ci sëriñ Habibu moom Cheikh Mamadou Fadal ak ci tur waa Tuubaa ca kanam ñu ñëw fii ci kër Seexul Xaddim ngir doon jébbali si addiye ji nga xam ne Tuubaa ci kanam mi ngi koy jëmale ci léggéey bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi ngi koy liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci dëkk bi teg ko ci loxol sëriñ Cheikhoum sëriñ Abdou Latif ak jëwriñam yi ko fiy jàppale yëpp ñu fas yéene ànd ñoom liggéey bi sax Touba ci kanam am addiya ju mu yëkkati woon andi ko teg ko ci seen loxo ngir ñu defal leen ko ci liggéey bi sëñ Touba ndax dëkk bi Touba ci kanam dafa jàpp ne lépp lu ñu fiy yëngal rek ñoom lañ koy defal képp ku fiy yëngutu it jàpp nañ ne ñun waa Touba ci kanam ngay jàppale te ñoom ñi nga xam ne ñoo koy def it yàlla dogal na ko ñun noo ànd liggéeyu Touba ci kanam muy sëñ Cheikh ak jiw ñoom yëpp ñu ngi ànd ak ñun ci Touba ci kanam sëñ Cheikh ba mu sosoo ba tey wax dëgg jàmbaar la ci kenn mënu ko ci. Cheikh Mamadou Mountakha it di jëmm joo xam ne ñun waa Touba ci kanam mënuñu koo fay ndax ban yëkkatee liggéey bi ci nekk Cheikh Sidou moo ci njëkk a tabbi ci kilifa yi nga xam ne ñooy njabootu sëriñ bi ànd ko ak ñun ànd yu rafet boobaag léegi it tekkiwu ci ak laxasaayam bi mu doonee sëñ Touba bi ñëwee dafa wax ne damaa gën a fedd sama laxasaay fas yéene ko gën a ànd ak yéen te loolee bis bu set mu wane ko bis bu set mu jëfe ko kon nag lépp lu mu santaane ci dëkk bi rek nun waa Touba Ca Kanam jàpp nañ ne loolu nun ci waaye jàpp ne nun nga ciy dimbali moo tax nag ñu àndoona suñ jëwiñ ji sëriñ Habibu ak suñ mbokki taalibe yi ko àndal yëpp ñu ñëw ngir feeñal suñ yéene ci joxe fii lii nu fi joxe donte lu xeeb lool la nag ndax li ñu war ci dëkk bi ëpp na loolu li ñu war ci liggéey ëpp na loolu waaye nu feeñal suñu ànd ak sëriñ a ak jëriñ ci liggéey bi rek ba ba muy sotti incha allah xam naa bagage yi ñu fi indi nag damay jox sëriñ Abdou Fatah gi kàddu gi bu ko defee mu leeralal leen li ñu fi indi ci ay bagage waaleykum salaam wa rahmatulah. dañuy tàmbalee ci sant yàlla julli ci yéen di salaam sant sëriñ Touba ñaanal sëriñ Mountakha suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko sant leen yéen kilifa yi Touba ca kanam sëriñ Abibou sëriñ Abdoulaye ziare bu baax sëriñ Takku Mbacke mi nga xam ne mooy ambassadeur Touba ca kanam noonu nga ko wax sëñ bi bagage yi nga xam ne indi nañ ko fi mi ngi toll ci eh, ay brouette la ak i peel ak yeneen jumtuwaay yi nga xam ne mën nañ koo soxla ci sécurité ay canal ngir ndoxum taw mi mën cee jaar jàll. Eh, brouette lu toll ci ñaar fukki brouette yu mag indi nañ ko fi eh, siwo yi nga xam ne moom la ñuy tànqe indi nañ ci lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróom dàll yu gudd yooyu ñuy sol ñu di ko wax ay bot indi nañ ci lu toll ci juróom benn fukk gants yi ñuy sol tamit toll na ci juróom benn fukk. ay peel indi nañ ci lu tolloog juróom fukk eh, pik ñaar fukk ay baramin tamit indi nañ ci lu tollook ñaar fukk lu jëm ci wàllu xéewal yi ci mbokki taalibe yi nga xam ne ñooy yëngu ci bis bis bis yi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee liggéey boobu indi nañ ci lu tolloog ñetti nag ak tonub ceeb loolu yëpp nag noonu ko sëñ Abdoulaye waxee rek ñu fas yéene ko ànd ak Serigne Mountakha ci ndigal li nga xam ne joxe na ko fas ne ànd ak moom tamit takkaat suñuy laxasaay ànd ci liggéey bi ni ko ni ko ni ko taalib yëpp di defee incha allah di ñaan yàlla mu nangul nu te yàggal fi sëriñ Muntaxa di jaajëfal kilifa Tuubaa ci kanam yëpp ne moo topp sëñ Seex ci liggéey bi ñu nekk moo ñuy jox ndigal sëñ mi ngi lay nuyu bu baax ci turu mbooleem liggéey bii sëñ Tuubaa ji liggéey lu te wut ay jëwriñ yoo xam ne ñoo ko baaxoo di ko yor boole ko njaboot sëñ Tuubaa gépp ñaan di ko liggéey sëñ Cheikh mu ngi leen di sant bu baax ci jëf ji ngeen jëf te jëfal ko seen bopp waaye jëfal ko sëñ Touba ndax am murid moom lu mu def sëñ Touba la ko defal te boobu day dellu si boppam rek su boobaa waaye ndokk bi ngeen xamee ne yéen fa bu bëggu sëñ bi jógee ngeen bokk ci ña koy tax mën am ndax gannaaw bëgg sëñ Touba gi mënta ñàkk am ku ca bokk rek sant war ngaa sant yàlla te yàlla dogal na bokk ngeen ci saabu bu sëñ bi neen nañ def nangam rek fexe ngeen ba seen alal njëkk ca mujj ca looy itam ndimbal la ndax liggéey bu rëy ngeen yor boo xam ne adduna bépp ko bokk adduna bépp ko gisit adduna bépp xam fi muy jëm itam ndax liggéey la boo xam ne waxtu na li ngeen ciy def am na seere sëñ Tuubaa mi nga xam ne mu ngi defal tam mën na koo seere ndax liggéey bu ne bu ñu wootee ca mbale maag ci liggéey bu mel nii nuy ànde nun di ànd ak seen liggéey seen taxawaay mat na ci sëkk bii nag moom da cee gën a yokkooti ndax bii day bu bette teel teel niru lu yomb te jafe te waajaay wi gàtt lool lañ ca waroon a jëfandikoo lépp yëmbut sëñ Tuubaa dogal yéen ngeen fexe ba ñun liñ bëggoon nga xam ne moo ñu gënoon tam muy fexe ba nit ñi mën a añ ci bis añ ba ngeen fexe ba indi lépp ba doy sëkk nii noo ngi ñaanal sëñ mbooloo mi nga àndal ak liggéey sëñ Tuubaa mi ngeen di liggéey suñu borom aaral leen boppam ndax suñu borom rek a mën a aar te comme aar da nga a liggéey sëñ Tuubaa yàlla bu seytaane amu yoon fa ngeen ko bëgg a jëmee itam yéen rek ko xam ak mboolem murid yi waaye yàlla na àgg foofa te loolu mooy lan mooy ni ngeen tàmbalee ba dëkk bi nii mu war a mel nga xam ne wax ne nii la dëkk bi war a mel te borom noonu la bëggoon mel ngeen fexe ba jëm mel noona yàlla neen ko melal noonu sëñ bi bëggoon te sëñ bi weesu rek bëgg murid doon ay taalibe liggéey bii mu soxla di ko liggéeyal ndax saayir si moom noo ko gàddu sëñ tuwaayul baatin bi kon nag saayir si ay loxo rek ak jëf a koy def gannaaw loolu mënta ñàkk nag yéen ngeen jóg taxa taxaay bu toll nii mënee sulaa ñàkk sant ndax am na men may wax naan naan àll jarul nawe mat mu ne déedéet ah na koo nawe ndax àll dana jege te du am mat kon loolu wëree da ngeen naan ah ñoom seen bopp la ah war na ndax am nañu ñu war a def te defuñu kon kay defar nañ ko sant kon noo leen sant baax ci turu sëñ Cheikh ci turu sëñ Xaadim mi ko fi nekkal yàlla leen ba lii ngeen yéene te fas yéene ko liggéeyal sëñ Tuubaa te ngeen ko tàmbalee ba léegi wàcceegu leen yoon woo yal na leen wut xalal yoon woowu ngeen di jaar te yàlla ku mu xalal yoon dana leer ci barkeb sëñ Tuubaa